mbokk Sénégal mbokk Afrique mbokk Europe ak États-Unis lu bees tax juddu na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a tabaxlu moo xam dëkkuwaay villa grand ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer seen xarkanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo leen ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aajo faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni maquette yi xool it seen plan architectural yu yànji yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaarange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar cité port kenook juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg ali baqa abi Maktabatu Touba Darou Sam si Touba Darou Khoudous mi ngi si yoonu Darou Mouhty mbokki taalibe yi bu ngeen fi accès fekk fi bay Serigne Lay moo leen yembal lépp luy jumtukaay ngir ngeen jaamu yàlla ngir yokk xam-xam ngir seeni i gëstu dama ni yemb na fi alquranul karim ulumul quran ulumul xadis am na ay téere xam yu wute ay fiq tawxid tasawuf bu ngeen bëggee taarix histoire wala géographie lépp fi yemb ay téere xam-xam yi mag ñi bind bu ngeen bëggee ay téere version anglais français lépp a ngi daal ci Maktabatu Touba Darou Sam ay téere Serigne El Hadj Mbacke borom xam-xam bu mag ba def ko si wolof di waxe Serigne Touba mbooleem téere Serigne Touba yéen a féere si wolof ak it ay xasida yu Serigne Abdourahmane Mbacke maktabatu Touba daa ko sa mbokk yi yemb na fi lépp lu jumtukaay ngir jaamu yàlla ay kurus sajjaada ay yëre yiw jàllabi yu baax a baax cuuraay nag fi la fekk baax lu ngeen ci bëgg moo ngi fii si maktabatu Touba Daaru Sam am nanu ay parfum yu neex a neex bàyyi ko si àdduna wërngal këpp ay sikki Amérique sikki Guerlain ay parfum yu jëm saafara bu ngeen bëggee ay moolu xasida Instant wala Mool Italie Talla Diagne Daaru Minam Xasida waaye tamit yemb na fi plastification photocopie en couleur wala noir et blanc fii si Maktabatu Touba Daaru Sam ñu ngi fi wecceeku carte de membre Touba sa kanam Nuuru Daaray yi mbokk yi gaaw leen gaaw woote si numéro yii di 77 233 24 39 76 673 18 83 wala 76 661 09 19 Maktabatu Touba Daaru Sam mooy barab bi leen yembal lépp lu jumtukaay ngir xam-xam jaamu yàlla wala ay yëre yu yiw a yiw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

ak sunu bokki jullit yépp nu gën a teg sunu tànk ci na nanu fexe ba kenn ku ne ci nun góor góorlu ba bu ko yàlla di soxla woo ko fekk mu doon dëgg dëggi jullit yàlla nanu ko yàlla jàppandalal di fàttali sunu bopp di fàttali bokk yépp benn tomb boo xam ne lii defar suñuy diggante ci la bokk muy kenn ku ne fexe ba jariñ moroomam walla bokk di jariñ ay moroomam jaare ko ci jox ko jox ko nag suñ ko tuddee xel naa dem ci alal waaye li nit mën a joxe lu bari la kenn ku ci nekk ak fam ca toll am na ñoo xam ne lañu mën a joxe ci seenum xel lañ koy génnee xalaat yu rafet yoo xam ne kañ koy digal su ko toppee mën na ne coow ba àgg fa mu bëggoon a àgg am na ya ñu yàlla may xel moom nañ cay joxe te yàlla tax am na ñoo xam ne it yor nañu si tuut nañuy def lañ man bañ a tas yaakaar ak lum néew néew am na ñoo xam ne yàlla jox na leen xam-xam xam-xamub jàng nañ cay joxe waaye am nañu yàlla jox xarala itam xam-xam koo xam ne xarala la ñoom itam buñ ca joxee mën nañu dugg ci aaya boobu suñu borom di wax am na ñoo xam ne mënu mënu si lañ yor xam-xamub jàng wala xam-xamub xarala waaye seeni jaar-jaar moo leen may lañ fañ jaar ba jàll kuñ ca wax te bay luñ la dara soo fa bëggee jaar danga xam na cay jaare waaye des na joxe it daan sa bakkan joxe ci sa daraja sa yi bopp yoo xam ne yàllaa ko dogal jaarale ko ci loxo yi nit ñi waaye des na joxe it ci waxtu bàyyi waxtu yu bari ne ci yittey doomu aadama yi waaye it des na joxe ba aw nit jariñu te yëgoo ne joxe nga bu dee ci yittey doomu aadama yi mbokk ngi nii moo xam ne daa dem fi barab rek fekk ñu ñu fa téye waaye atteeguñu leen mu dégg ca tur wuñ woo mu ne ña ko téye tur woowu de mënumaa dem ne ci bitti muy ne ci biir nañ ma nañ ma wax li ko fi indi lu mu doon su dee lu mu war a joxe ma joxe ko su dee dañ ko wëratee ñu ñu ñu bàyyi ma bàyyi ko mu dem ñu téye ma fi man ñu ne ko duñ la laaj dara dangay ànd ak moom dem ginnaaw sa yitte la kooke joxe na te ñam jox sax xamu leen mën nañ ko mën nañ ko bañ a xam mën na leen a bañ a gisati kon des na joxe ci waxtu des na joxe ci daraja des na joxe it ci sa jëmmi bopp ji yi nga xam ne ay yoxo la wala ay tànk wala ay gët wala ay cër muy fexe ba loo jàpp ne nit yi teewoo na ko te mënu koo wax te ay cër di ko sottal jóg ak say cër sottalal ko ko te yàlla rek tax waaye nit it dana jox nit te yëgul na joxe na ñañ ko jox yëgul ñu jox leen jox na leen mu dox ci yoon wi ba yàgg rek mu gis fa loo xam ne ku ko joggi mën na koo gaañ mu toppale ko gannaaw gis na ko mu bañ laal keneen kon joxe lu am solo la kenn ku nekk ak fam ki toll bunt bu ubbiku la boo xam ne ku ko tàmm ba tàmm ko bu joxee te kam yi jox xam ne jox na ko moom moo koy gën a bëgg ndax bànneex ba mu ciy yëg kim ko jox man naa bañ a yëg ndax kam ko jox moom la mu ko jox rek la koy jox mu dem faji soxlaam waaye bànneex bi muy yëg ci joxe gi tàmm ma joxe moo koy tax a am mooy ñi nga xam ne léeg-léeg dañ lay jox ba noppi digaat la bëgg nga dellu si waat ñu joxaat ko sëriñ bi mag bi sëriñ bu mag bi am na ku ko ne day ngoro ngoro ko yàgg lool booba lay soo ko am ndigalul woote wala boog bu dul woote it mu leeral ndigal lim am ci ku ko topp mu wan la aw yoon am ku ne ko ak ngoroom daa yàgg ba amatut yaakaar loola mbamb mu rëy la woon ci yëf yi ndax ba mu ko laajee loola nu muy toll mu jox mu wax ko ko da ko toppatoo jox ko ko mu dem lijjanti ngoroom mu siiw lool ba am ñu naan waaw ndekete yëf yi takkal soxna da cee bokk ñooñu waroon nañoo fekk tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mii jàngalekat bu mag bi nga xam ne foo séen ab taal di tàkk ak gilint la gu ñu roccee ca taalam ba wane na ci misaal moo xam ne ba mu fiy nekk joxe na lu nekk jox na ku ne it te bokk yi ab joxekat dëgg-dëgg du xool ku ko bëgg ak ku ko bañ du xool ku koy tagg ak ku koy xarab walla xalab ñoom lay yamale wér na lool na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa sol solu jiital mbubb bu teg ca meneen am ko ne ko mi ci kaw day laa bëgg nga jox ma ko ndax yàgg na maa wut mbubb mu ni mel mënuma koo am mu ne ko futeet sànni ko ko sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk na ci li gën a rëy li mu jox xeetam bi nga xam ne fekk ko mooy lii mu fi bàyyi muy diine lislaam alxuraan nekk ca bopp ba nga xam ne yàlla wax na ko ci ne waxal nit ñi ne leen man kat ki ma leen di woo di leen ci waar di leen ci yee mooy du ma ne leen dem leen ma dikk waaye dama na leen ay ca leen dem mooy ku dégg ci man na jot li moroomam kon da doon joxe yàlla tàggatal ko bakkanam xamut luy lu neex ak lu naqari waaye saa bu waree wax wax bu waree jëf-jëf te it kenn du jëf ci kanamam loo xam ne waroo koo jëf mu dala ca bàyyi ndax yow ay diw wala déet sallallahu alayhi wa sallam lim gën a jox xeet wi bokk na ca doon koo xam ne day joxañ lañu war a def ku ca jaar su ëllëgee am la nga bëgg waaye di joxeñ fa nga xam ne kenn waru fa jëm ba ku ko moytu it mucc sallallahu alayhi wa sallam bokk yi nag joxe bu tuddee joxe dëgg-dëgg amut fu muy yem junj naa ko léegi kay joxe it du ko utalub charte boo deful nangam dama la jox nangam déedéet waaye joxe ka dëgg-dëgg mooy koo xam ne daal lim yéene boppam la yéene ñëpp wala lim yéene ñëpp la ëpp moo ëpp lim yéene boppam xamut ku ko bañ ak ku ko bëgg ku koy sant ak ku koy xalab te bokk yi nag kenn ku nekk mën na koo xam ci boppam képp koo xam ne bëgg da koo dugg tàmbali koo yor na fexe ba rëcc ko ndax bu fexee ba bëgg jàpp ko léegi tey mu nay te ku nay di joxe am na ñoo xam ne nayuñu dañoo amul lu ñu joxe waaye ku yor moo tax ñuy wax ku nay ku yor am na xam-xam yi ma jotul lim léegi yor na ca benn waaye kenn mënut a fexe ba jot ca yàlla incha allah musal bu ñu ko gënee jegeel si mu gën a yomb ba ku ne man ko mooy buñ ne la diw daf laa mere soo ko séenee rek jëkk jëkk koo muuñ mu xam ne jàmm rek ne fa yow su boobaa lu mu jàppoon mën naa wàññiku ba defare leen du jafe wala nga jékki-jékki rek dem ci kër diw wala barabub diw moo xam nga fekk ko fa wala fekku ko fa la gën nag mooy booy dem nga bañ ko koo yëgal ndax boo ko yégalee mën naa am mu am yitte te du la mën na wax ne am na yitte bu ma ju ma war a doxi waaye boo jékki-jékkee rek na xoos agsi soo ko fekkee baax na soo ko fekkut baax na diw ñëwoon na fi mën naa ëpp bu yool fuuf nekk ma maa ngi ñëw waaye bokk yi xool nit ki xool xool amoo loo ko jox nga ne ko yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla faj sa aajo joxe gënu koo féeti kaw sakkantuma nag loo xam ne dara da ko saa waroon nga wàccal ko kon lu tee bokk yi ñun ñëpp ñu maase sóobu ci xat-xatloo ci buntub joxe xat-xatloo te kenn bañ a puus moroomam lu tee ñu xam lu ji njariñul joxe fas yéenee fexe ba am lu ñuy joxe te am na ci yuñ lim am yoo xam ne barab bi du mayee ñu di ko lim ndax bari na lool ba mën a bokk ci ñuy jariñ suñu xeet xeetu nit bokk ci ñiy jariñ liñ bokk muy diina ji bokk ci ñiy jariñ réew mi ñu bokk dëkkandoo bokk ci ñiy jariñ kenn ko nekk gox ba mu gën a jege ak ba ko gën a jege waaye nag bokk yi joxe dëgg-dëgg bala moo am njariñ yàlla di ko nangu mu am njariñ loo xam ne day jariñ ki ñu ko jox mu dem moom yool ba nekkal fa ka ko jox mooy mu fexe ba daan bakkanam ci njistal ci buy joxe daan bakkanam ci bëgg ñu di ko dégg naan ab joxekat la waaye daan bakkamit bakkanamit ci tayal naan ñi ñëpp kenn mënu leen a jox ku leen jox léegi tey nga mel ni ñoom fexe dal bala ngay doxe joxe sax dàkk feeg yaa ngi koy man lu néew néew ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na li gënal yàlla ci jëfi jàmm bi mooy loo xam ne moom la waaja moom la saxal ak lu mu néew néew ndax kat taw bi ñu gis nii li muy bari bari ay toq rek la ba ba ba muy wal bañ naan defar na dëkk sàngam ndax wal na ba dugg ci seen néeg yi ay toq la kon toq yu tëdd dakk la mbokk ma ñaanoon mel ni mag ne ko dama bëgg nga ñaanal ma yàlla wërsëg ndax dëkk ba ma dëkk ku yorut doo fa wax mu ne ko wuy toq walla wuy yur yuri ba mu naree am ndimbal da ko ne ñaanal ma wuy maga ne ko nee ko wuy toq toq yu dijj sa jegee rek mu ne ko kon bokk ay ca mu ne ko moo gën de ndax xër-xër moom xërsat rek wala mu yàq moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne li gën ci li nit di def gënal yàlla mooy la muy def mu néew mu bari na fexe bam sax ku la seen daal na waaje ñëwati na am ci yow yaakaar ndax lu waaye joxe ci yooyu ma lim ak yi ma limul lum néew néew yàlla moo dàqaful ñëpp dàqandiwu ko kenn sax waxin rek la ndax ñii ji xam nañ ci dara wenn fepp wala ay fepp yu néew la ñuy def cim tooba mu génn léng génn fepp yoo xam ne lim ko dana jafe yàlla rek xam lim ba ñaata la te ka ko def ka ko joxe woon da ko joxe rek dénk ko yàlla dem xamut nu mu tëddee xamut daa jaaxaar xamut daa defeenu xamut daa tëddee bet xamut dafa taxaw waaye yàlla la teg ci loxoom yàlla nangu wuutu ko fa muy demee ko ñëw gis muy yokk ba ba muy ñor mu góob tàmbalee jariñoo di jariñ ñeneen li tax ma ne lu yomb la benn waaye ngi nii rek doyoon waar lool ba nit ñi xam ko mu romb bant bo banqaas boo xam ne daa law ba tiim yoon wi nga xam ne kuy dox guddi mën na ko bañ a gis bu waree dara mu ne bànqaas bii de du ma ko romb mukk te dindiwuma ko bala mu fay gaañ keneen ginnaaw man gis naa ko ba mu faatoo yàlla ne ko aljanna nga jëm mu ne ko nu mu mën a amee tàmbalee gis xéewal aljana demaguñ ca waaye yi xéewal yi yi wanee ne aljana am na mu ne lii de man moom de du jëfam wóor na ko du jëfam moom suñu borom xamal ko ne ko banqaas boo mas a romb mu tiim yoon bi mën a gaañ keneen nga dindi ko moo la may aljana kon boog dara mut a xeeb ci lu baax ci alal joo mën a dimbale ay jaam yàlla xam-xam boo mën a joxe xel mu rafet moo mën a joxe waaye waxtu woo xam ne danga koy def ci dox ci yittey nit ñi yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp te musal ñu seytaane ki pakkam yoon wi jëm ci liy musal seytaane ci seytaane ki pakkam nag bokk na ca ku sóobu yoonu jariñ nit ñi ak fànn gu mën a leen ta gu mën a tànn leen ci jariñe dana mën a bari ay gàllankoor yoo xam ne mën na koo tayalloo te bu ko tayalloo ñam àndal mën nañ koo raw waaye ku tayal di bëgg dugg rek na gaaw na bëreet def la mu bëgg a def gaaw ndax seytaanee fa taxawoon yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin mbokk Sénégal mbokk Afrique mbokk Europe ak États-Unis lu bees tax judd na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a tabaxlu moo xam dëkkuwaay villa grand ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer seen xarkanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxari jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aaju faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni maquette yi xool it seen plan architectural yu yanji yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaaraange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar cité port kenook juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg maktabatu Touba Darou Sam si daaru Darou Khoudous mi ngi si yoonu Darou Moxti mbokki taalibe yi bu ngeen fi agsee fekk fi bay Serigne lay moo leen yembal lépp luy jumtukaay ngir ngeen jaamu yàlla ngir yokk xam-xam ngir seen i gëstu dama ni yemb na fi alquranul karim ulumul quran ulumul xadis am na ay téere xam yu wute ay fiq tawxid tasawuf bu ngeen bëggee taarix histoire wala géographie lépp fi yemb ay téere xam-xam yi mag ñi bind bu ngeen bëggee ay téere version anglais français lépp nga fi ngi dal ci maktabatu Touba Darou Sam ay téere Serigne El Hadj Mbacke borom xam-xam bu mag ba def ko si wolof di waxe Serigne Touba mbooleem téere Serigne Touba yéen a féere si wolof ak it ay xasida yu Serigne Abdourahmane Mbacke maktabatu Touba daa ko sa mbokk yi yemb na fi lépp lu jumtukaay ngir jaamu yàlla ay kurus sajjaada ay yëre yiw jàllabi yu baax a baax cuuraay nag fi la fekk baax lu ngeen ci bëgg moo ngi fii si maktabatu Touba Darou Sam am nanu ay parfum yu neex a neex bàyyi ko si àdduna wërngal këpp ay sikki Amérique sikki Guerlain ay parfum yu jëm saafara bu ngeen bëggee ay moolu xasida moolu Afghanistan wala mool Italie Talla Diagne Daaru Minam xasida waaye tamit yemb na fi plastification photocopie en couleur wala noir et blanc fii si Maktabatu Touba Daaru Sam ñu ngi fi wecceeku carte de membre Touba sa kanam nuuru daaray nii mbokk yi gaaw leen gaaw woote si numéro yii di 77 233 24 39 76 673 18 83 wala 76 661 09 19 Maktabatu Touba Daaru Sam mooy barab bi leen yembal lépp lu jumtukaay ngir xam-xam jaamu yàlla wala ay yëre yu yiw a yiw lépp lañ fi fàggu ngir seen bànneex Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer بنا به ينفرد